dem naa si stade bi bañ calmer ko bi may dugg mu ngi doon sotteeku mais ñu ngi si sotti ndox calmer ko mais loolu yëpp man jàppee ma ko dara dafa jàppoo ni bu arbitre sifflé damay hmm. waaw. am na solo Thier fi ñuy jeexalee moom rek mooy combat 19 novembre. Hmm. seen diggante ak Lac de Guiers. Hmm. bi nag coow li bari na li dal Ama Baldé dal na leen ci benn côté ñu ne Siteu est-ce que sàgganul ci côté préparation parce que ci imagine ko mujjee gis ka Lac de Guiers ko ëppee lu bari. loolu lan nga siy wax. waaw mais liggéey la rek Lac de Guiers moom mu ngi liggéey mook ay mbokkam waaw Siteu mu ngi liggéey mook ay mbokkam hmm. te bu ñu paree ci lii ñu nekk nii waaw ci la de lañ jëm ah, de bu yeboo lu waaj lu mu waaj na waxee <laughs> te te Siteu pare na di ah. Ah. waaw waaw gis naa koo gis de. ah bàyyi ba mu ñibbi si. ñu gàmbi liggéey de. waaw hmm. Lac de Guiers bi. Ah. gis naa ko kay. ak lex lexam yu rëy <laughs> ak ñaxtaayam bi saf si. waaw ah, daal andi ko fa. ak bopp bu rëy. Ah, ak doole ju bëri. moom monument la wala. kan la dëgg. mooy monument la. ah waalo. si taa ko moom. waalo eh si taa moom waalo boo demoon waalo ba Dagana. jàpp Fouta ba Njum. Ah, non mais maa ngi way wax ah Lalla Gueye moom waalo moom fa dara Lalla Gueye waalo waalo de. ak ah, ak soose. ak soose waalo. Ah, waalo de ay alal séeréer gis nga gis nga nit gis nga sant dëggul fenn. waaw sant dëggul fenn. mais Siteu boo ko toppee ba ay mbokkam boo demee fekk leen waalo te ay séeréer lañ te ñu ngi biir waalo tàng ma dégg waaw te maamam maamam maamam maamam bu jigéen dafa bokkoon ci ci jigéen ñooñu booloo woon ci biir néeg taal seen bopp ba dee ci ñemeeg dee ngir bañ ku leen saay-saaye <laughs> ngir bañ ku waaw Siteu maam da cee bokk ok mais sérieusement ci côté préparation fan ngeen toll parce que combat bi yaakaar naa lag comme li mu wax rek nee na yaru ko boole ak Siteu parce que à travers kàddu yi nga xam mi ngi ko koy sànni muy kàddu yi yar euh, maanaam kàddu yu respect yi moo tax mu jël combat bi mais combat bi amul fu mu koy yóbbu comme yéen ñi nga xam ne am na fu mu leen di yóbbu ñenn ci sénégalais yi ne la de Guiers ëpp doole moo dàq bëree sita amul sens ci combat bi lan nga leen di wax mais bu fekkee loolu moo ko ci dugal bu yoboo na ko génne la ci dugal le respect c'est propre bu Siteu jugee fee mu jugee bu ñëw fi bu war a jàkkaarloo la dëgër ah. dina xam ni bi fee respect bi fee la yem. moo na waaj ay mbokkam de lu mu waaj doyul. dañoo bëgg combat bi de te dafa am fu mu ñuy fu mu ñuy bu yóbboo mu def loolu ci bopp bi. mais maman. Ah. tey nga gis Siteu nga jàppante nga par ah. na mën a vrai la ko lu a mën na ko. lu ko raw Siteu mën na lu ko raw. bu ko defee làmb tam leen de. ah. baax na ñu ne euh, combat sans am xeex rek la ta am xeex. waaw. sans xanaa la mënul xeex. mais jàppante moom bu jàppante bi moom. la daggeen nee na moom bu arbitre bi prip. Hmm. mooy dox si kaw Siteu. am ah, loolu la waaw baax na ñu ngi koy xaar. Hmm. Hmm. dañu taxaw xaar ko. Ah, moom nag dafa mën. bataille <laughs> dafa mën comme bataille. bataille psychologique ay xeer yooyu parce que. la daggeen man dama koo yàgg seetaan. mais bu signature. man damay tiit. da nga naan tey mu naan kii tey ñu rey ko mais bu demee làmb ja man dama naan non non kii du Lac de mais loolu noonu du am ci diggante moog Siteu bu ñëwul Siteu day ñëw. niil du am. niil. Siteu dina niil ak Lac de Guiers. non mais hmm. bu demee ba ragal loolu ñu bàyyi ko. mais mais Lat nee ay rakam moo leen daan de kon moom combat bi moom amul droit def ci erreur ñaari rakam moo leen daan. rakk yeen Euh, euh, nu mu ak ak ak ñoo daan Siteu. waaw voilà léegi finition bi ñu dese ñun ci Lac de Guiers des boo Niang. Boy ñaa <laughs> Boy Niang dugg na Guédiawaye jëfere na ko. Euh. jox ko Balla Gaye. waaw moom finition bi mu dese woon ci kii la. ñu moom jeexal na jeexal na géejawaay dootul ah. bëree géejawaay ñu jox ko Balla Gaye mu bëree Balla Gaye daan te kenn fogeewu ko woon. mais mais est-ce que liy Boy Niang Siteu la. non mais yow Siteu day moroomu booy yi ngay wax ah. non du benn ci làmb yi tey ñu ne euh, Lac de na ci mbër gën a bokk na ci mbër yi gën doole. gën a fonk bis euh, kiiwul bis moom fonkul bis. fonkul bis déedéet. mbër boo xam ne day ñëw ne niil rek. Tafatine man. men na ko jël pérén. lii <laughs> <laughs> daal Tafatine ci ban anam la ko daane. ci ban anam yàgg na de. fëgg tànk yi daw ak ba la ko la ko defaat. daan na ëmb seen niil rek yow xam nga li ñu lay wax ne moo daan yow mii sax xam nga ni Lac de Guiers day niil. ah non moom mujjee daan mu bugg ci leen lu dul niil. bilaay nii rek la ci bëgg. waaw sans contrôle gars yi si ne ko moo mm. mu nekk victoire. waaw. waaw yéen ñii da ngeen dof de. <laughs> si te dem waajale ji préparé ñëw pour jixaat nga naan ma la. Mm. am ndam de ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko ndam bu seddu kuy ci kaw la de guerre. fi ñuy jeexale mooy si jàmm gën bi parce que dañuy dégg mbër yu bari bu dee géejawaay mm. gars yi dañ naan Lat Diop. dañu leen di jënd ay bologu bee buuse këccëb gars yi dañ leen fayoo ñoom Aline Sall ak ay dara bu dee parcelle gars yi dañ naa Mansour Ba peer ba ak ñeneen ñu ko fay def ak goo fay mais jàmm gën dañu xool ci côté mobilisation seen mbëri ñoo dàq mobiliser te bu ñu waxee ñu ne amuñu ku ñu jëndal ñetti bolog 600000 lan mooy problème dëgg la yéen a demul ci autorité yi wala lan moo xew seen diggante ak autorité yi yi nekk fii seen fi nekkal ku ci toog sa bopp ngay lijjanti ak sa njaboot waaw ah, te bu te bu affaire yi jotee yow si ñi ngay dugg wax ko ñu jàppale leen affaire yooyu bu la yàlla may li nga doon mooy loolu. man nag yàlla dafa musu def man musuma gëm politique man musuma votel kenn ci président yi fi jot jaar sax waxatuma la ak ay maire yi comprendre parce que bu ñu nee politique politique baax na mais dafa am lu ci lalu lu bokkul mooy jikko sien bi sien mooy xaj. waaw jikko boobu fii ak rek ñun sunu dara du avancé mais politik dara gënu ko comme waaw dara ëpp dara ëpp daraja si yoonu yàlla quoi waa ndax day defar réew comprendre mais ñii ñi dañ dem ba benn instant sax jàppewutuñu sax askan bi ay nit waaw dañ leen di soxla utiliser leen bu jeexee jeex na te yow boo toogee après yow lijjantiwoo sax ñi nga nekk noonu loolu dañ ci sonn vraiment moo tax fii nii amul benn autorité bu ñëw taxaw naan la maa may bolo bi wala maa may kaar yi. dem ngeen si ñoom. waaye ngoom seede dem ne leen am nañ combat. dem ci ay ci kii bi. ci waaye lu tax duñ fa dem. ñi fi am ay ndomba tànk. dama ne Ndofène Ndofène. Ndofène bi dañ daan dem foofu di ko wax dañoo am combat. mais bu ñëwee dañuy jox ay va bu cinquante mille ay enveloppe bu cent mille benn yoon la ñaarul waaw ah, wallahi alazim te man duma fa dem man du dugg ci bureau yi kenn même bu Macky Sall ñëwoon fii mairie bi si jaww fii nii. Mm-hmm. wallahi du ma dem xooli ko mm-hmm. parce que intéressé moom moom boppam la fi nekka mm-hmm. ok am na solo ban message ngay uh, am boo xamante bi ni war nga ko lancer rek par rapport ak CNS bi nga xam ne làmb bu amee des fois day am ñoo xam ne seen xol du ci sedd ñu wax ko ñu ñàkk ko parce que day am ñoo xam ne seen yoon du ci ñekk duñ xam supporteru Mama Lamine la. dina xam supporteeru Balla Gaye la wala Modou Lo comme si man di doon dangay gis nit buy dem nga kar ko nangu alalam ci anamin bu metti boo xamante bi ni sax du xam kan la mais kii de da koy ñaanal savaan ban message nga ciy lancé parce que yaakaar naa yéen tamit war ngeen cee a wax. non dëgg la loolu moom wax dëgg yàlla man dama koy ñaawlu parce que su ma juumul démb bi ne ma yeggee ba buntu Pikine bu doon damaa yóbbu gàllaaj foofu la tojee. buntu Pikine. àq mm-hmm. baaxul. mun naa ne ci li ma daan si loolu ci la bokk parce que nit ak lay rax te xamoo ko. dawal scooter am ba ci digg bi gaare ko fekk ab maire bu taxaw nga nangu li mu yor mu bañ nga rocc jaasi dóor ko ko mu bàyyi. pareewul yew nga bëmmax ko. ma ne kii boobu sama loxo bàyyi xel dara mais bi ma gisee loolu dama tiit mu mel ni lu nekkoon si man yëpp dañ na. ma naan sa waay dàq dabal ñu dàq booy bi. dama la wàcc ci oto bi pour jàpp booy bi. lim waaw lim xaw ma ko wallaahi lazim xaw ma ko. ndax anamin ndax amin ni mu ko defee. parce que loolu yow ko xool sa yaay doo ko def yenn yi. Mm-hmm, mm-hmm. mais boo xoolee yaay jàmbur mu nekk ci mbedd bi nga am loo bëgg jël ci moom tax nga bëgg defee nii. Mm-hmm. mais loolu rafetul. loolu rafetul nit ku nekk yaa war a sensibiliser sa bopp. di xool li nga xamante ni yow méngoog naag sa sa sa sa xel. ak sa xol nga di ko def te yàlla tax. te bañ di dëkkee lu bon maanaam fekk ku yor alalam nga jël ko loolu du lu rafet la mu musuma ko rafetloo te li ñu gën a ñàkkaloo démb loolu ci la bokk xaw ma daf may bëggee bëggeewum mais bu fekkee moom noonu lay doxee moom bu yeboo mu amatee combat sax mën a toog këram parce que lii boo gisee sax noonu mu amee noonu sax gars yi prévoir wuñ comme genre yi mel nii mais ñun suñuy combat dañ daan taxaw fii police moo ñuy gunge ba ñu egg yaa ngi dégg suñ ko amul gars yi ñoo jël seen matuwaay ku ñu gis ngay def naka su dul noonu ñu teg la ci code mais démb ñi may àndal peut-être xëy na seen xol jéggi na leneen lu ñuy dund lu bokkut ak li comprendre mais nañ ko bàyyi te fexee liggéey jaamu yàlla teral seen waajur moo xam bu góor bu la ak bu jigéen bi parce que fii loo ñaqul doo ko jëriñoo boo fekkee ne ku ñaq waaw ah, te ñaq dafa fort dina romb deret romb dëtt boo ko lekkee nag ah bula la jigéen ma xam ni mbër macha allah kontaan maa nga maa la gën a kontaan Baye Fall. maa ngi leen di bëggee yow ak Thier yëpp. Mm. mu daan de sans frontière di la kontaanee bu baax a baax. di kontaanee Thier ak seen caméraman yi. ak nuyu sama xarit ne di jël ñëw spécial boo xam ne dama koy santé suma rakk suma xarit suma doom. Mm. muy gabu. waaw maa ngi koy ñaanal yàlla sunu borom xaaree ko aljanna. waaw di wax ay mbokkam yàlla na sarax bu yàgg seen loxo voilà parce que àdduna ni mel waaw ki dem ragal yóbbu ko ki fi des ñeme bawu ko fi sama seex bi nga xamante ni moom bi maa ngi ñaan yàlla yàlla defal ko liberté parce que doon li nga xamante ni lu gën si ñun la waaw taqe aussi tamit maa ngi koy nuyu di ko sant bu baax di ko gërëm waaw parce que natt du wees ni mel waaw nit ki looy yoot rek na doon lu gën si lu gënul si rek yàlla mu ñëw si waaw di sant sama xarit yi nag awma lu dul ñoom ñoom rek laa am parce que maam Serafaan parce que àdduna da lay poussé nga def loo xam ne après yow ñoom duñ ci rencontre dara ñu jàpp ne kii xam nga respecté wuñu wala kii wuñ déedéet demeewul noonu waaw nit am na lu muy def fekk doonul lu gën ci moom am na lu muy def fekk loolu lu gën ci moom surtout ki nga xamante ni bu amee naqar dala koy wax bu amee bànneex dala koy wax waaw bu amee lu ñëw ci moom te waxuloo ko rek xalaatal leneen lu bokkul li ngay xalaat waaw que fi ma toll yow mun nga fa toll nit day fàtte xel day fàttu te nit day jaxasoo waaw maa ngi leen di jéggaluwaat bu baax a baax a baax waaw lépp loo xam ne su ma diggante ak ñoom la ñu warloo ko war ko def waaw dinaa ko def lépp luñ ma wax ma dem defi ko dama ko dem defi parce que bu ma jugee ci lii ma nekk nii semaine bi damay dem delluwaat samay entraînement continuer waaw te boobaa nag retour bi day am te day saf saf booy bu ñaaw bu dëkk Medina bi moom booy bu ñaaw booy bu ñaaw bu dëkk Mbirina bi boobu. du soxla baal ma jàpp yow inna le wole. da kaa moom. oh mooy borom léegi ñàkk na ko. <laughs> léegi moomatu ko de. jaama gën ak rëbës. Ah, non <laughs> kay. macha allah mbokk yi mi ngi noonu di leen jaajëfalaat baax yéen ñu doon suivre ci Gaston Production ETDR Thier. di leen jox di daje rek ba beneen yoon incha allah jërëjëf.